damay jeexale nag ci poñ bu am solo te muy wàllum aada ak cosaan maanaam culture te culture boobu it askan wu nekk ak na mu koy dundee ci loolu nag réew mu nekk dafa war a nangul moroomam culture am ak lañu gëm te wax nga ko léegi sax li ñuy woowee crise de l'humanité bu amee rek mooy benn réew dafa taxaw bëgg a moroomam am na nag ay valeur wala jikko yu nu mën a bokk waaye am na ci yoo xam ni nag dafa spécifique te dañ ko war a xam léegi birum jikko yooyu rawatina wàllum LGBTQ di ngóor jigéen boo moywul moo nar indi ay féewaloo ci diggante réewu tubaab yi ak réew yi ñu ci ñuul yi bu ñu continuer di ko waxtaanee nii. mbir mi nga xam ni nag li ñu koy gën a waxtaanee mbir mi nga xam ni nag bokk na ci li ñu gën a waxtaanee ci réewu tubaab yooyu te mu respecté ko loolu te ñu respecté ko loolu nag mooy question boobu di wax ci wàllum genre ak yu ni mel dafa am ay contradiction di wuute yu bari ci réew yi bu ñu sukkandikoo ci seen histoire seen aada seen valeur maanaam seeni civilisation dafay wuute loolu bari na nag jafe-jafe yuy am ci diggante réew yi te politique warulu ko waaye lu ko waral mooy yeneen réew yi ñoo bëgg a seeni moroom ay mbir jikko wala valeur yoo xam ni dëppoowul ak lañu gëm wala li leen seen diine ak seen aadama yi réewum Sénégal nag ci côté yépp moom réew mu laïc la waaye pas ci sensu athée waaye nag état bu xam fa mu yem ba noppi respecté ñépp

même bu ñuy nangu laïcité du tee nag réew mu nekk adapté ko ak situation wala doxalinam Sénégal nag ma fàttali ko réew la mu séparé wu nguur gi ak diine ji waaye nag mottali konte gi ñuy amal mooy tax nguur gi nekk acteur bu am solo ci diine ji jàmm ji ak dalu politique bi ak société bi loolu nag moo tax wàllum gëm-gëm am place bu rëy ci réew bi ak ci nguur gi moo xam muy jullit bi chrétien bi ak yeneen xeet yépp président Mélenchon modèle boobu ma la wax léegi mooy wane ni Sénégal dafa bëgg continuer di nekk réew mu am stabilité ak jàmm léegi nag li mënatul a nekk ma baamu ko mooy yeneen réew yi di ñu imposer seen mode de vie wàllum dund goo xam ni méngoowul ak suñuy valeur loolu ñuy woowee nag mbirum genre daanaka programme yu bari ci gestion internationale yi da ñëw ak rapport bilatéraux yi léegi léeg sax nag daanaka ab condition lañ koy def ngir mën a signer seen contrat yi bu leen foog ni suñu société yi xamuñu mbir yooyu xam nañ ko de dañu ko gérer ak seeni façon askan wu nekk nag am na façon bu muy dundee ak nu muy doxee te loolu nag lu ñu war a respecté la ci misaal France day tere polygamie ñaari jabar nangu nañ leen loolu ndax mooy seen mode de vie mooy France muy France ak Europe France nag moom ci boppam ak occidentaux yi yow sax maa ngi lay félicité ndax bokk nga ci politicien rare yu français yi nga xamante ni jug nga di naqaral loolu xam nga ko France day bodde ay diine muy diine lislaam ji bay tax bay sax interdit ñenn ñi la ñu war a sol ngir ñu koy sol bu loolu méngoo woon nag ak suñu cosaan kon wala suñu diine dinañ ko nangu waaye bu fekkee ni tey suñu dëkk yi mbirum góor jigéen nanguwuñ ko fi teewul ñoo ngi koy tolloore te benn problème mësul am nag mu di Sénégal wala ci réewu Afrique yépp réew mu nekk nag am na nu mu koy tuddee fii ci Sénégal ñun ngóor jigéen lañ koy woowee waaye tur woowu jugóol ci kaw wàcc de parce que dafa nekk lu am moo tax ñu koy woowee noonu waaye ñoo ngi gérer waaye ñoo ngi koy gérer te dinañ continuer nag di ko gérer ci suñu façon loolu moo tax nag ñoo ngi woo askanu tubaab bi ngir ñu gën a am ak mat yamale ak yërmande ci loolu même problème bu amee France li ñu naan seen mode de vie la léegi léeg sax ngeen ni illuminé yi dañuy attaquer seen mode de vie ñun tamit lii suñu mode de vie la te nag anam bi ñuy dundee mënul niroo loolu faaw ñu xam ko loolu moo tax nag may tëjee di wax ni ci wàllum ngóor jigéen moomu ci ngóor jigéen moomu muy Sénégal ak réew yu bari ci Afrique mënuñoo nangu kenn ak ku mu mënti doon di leen imposer ni ñuy dundee.